nañ ne administration Sénégal bu ñu respecté woon la mais jamono ji Macky Sall bi mu fi toogee léegi gis nañ ne fexe na ba administration bépp bu ma man ak Ahmadou Lo mi bi ñu xëyee dem fa fa demee dañ ko wuy ji ngir respecté institution yi bi ñu egsee li ñu njëkk xamal mooy préfet mu notifier ñu war nañu meeting bi dañ ko interdit te jàpp naa histoire Sénégal c'est la première fois nga gis commissaire policier di interdit meeting wala mu koy autorisé jàpp naa ne loolu kenn mosu ko kenn mosu imaginer bi loolu amee nag ñun daama par personnel génn nañ kalaake buntu bi xamal ne ko yow politicien nga Antoine Diome moo la manipulé jox la ndigal pour nga interdire manifestation mais loolu ñun duñ ci d'accord biñ génnee li ñu njëkk a def mooy dem fa pour gis fa préfet fekkuñ fa ngi mel ni kon mbir mi ñoom dañ ko planifié pare daw génn département Mbacké ñu leen xamal nag bu dee ñoom ay politiciens lañ dañ leen jàpp bis ni que adversaire politique te xam ne préfet bu Mbacké waxul dëgg mu def tegu ko ci droit tegu ko ci yoon ci ay fen ak étape la ko teg ñu xam nag ñun dañ def faire face ak ñoom ndax président Ousmane Sonko ab citoyen sénégalais la yor parti politique yoon may ko mu def meeting fu mu ko soobee ci Sénégal gis nañ ne Macky Sall fu mu bëgg a def meeting dina ko fa def te ko indil ay jafe-jafe pourquoi moom mu ne opposant bi du def meeting fenn ci Sénégal loolu amu ci droit kon jàpp na ne ñun ci virgule gis nañ nag li ngeen gis ndax meeting pour nga interdit ko am nga 48 heures mais gis nañ biñ ko interdit 24 heures am na te indi nañ suñu disposition yëpp pour préparer suñu meeting carré war a ñëw am na ci ñoo xam ne Gambie lañ France nañ am ñoo xam ne Sokone am ñoo xam ne Kaolack am na ci ñoo xam ne ñi ngi jóge ba Kébémer ñi ko gis ngeen ko kon jàpp naa ne loolu acharnement la boo xam ne jëmee nañ ko ci kaw Pastef du jàll fii mooy waxee nii Ousmane Sonko mu nga Padoa di visite ab maire boo xam ne dañ ko ko jox ci démocratie bu doon réewum buur la du fi mas a nekk buur ndax ay ndayam ak kon démocratie moo tax mu nekk président de la république démocratie boobu dina ko respecté wa ilaa ñun ñëpp mu jaar kaw def ñu ay néew lii mu ñu teg duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg président Ousmane Sonko Sénégal yëpp ñu ko xaar ci département Mbacké suba bu ñëwut ñun département Mbacké baaluñ ko ko nañ ñëw ñu teeru ko bu fekkente ni Macky Sall moom dëkk bi dina leer jàpp naa ne Touba nañ mas a libéré Sénégal suba Touba dinañ libéré Sénégal dina fi ñëw attention waa AP waa APR yi nag bis ni ko tey dinañ xamal nag waa APR yi du ma ne waa APR sax mais mercenaires politiques yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi di jéem a divier waa Pastef dinañ xam ne ñun lañ ko jàmmaar lool mhm. li xam ne dinañ ko muñ di xool ay taalibe ak warma à partir de dakk na bis ni ko tey mhm. Macky Sall ko personne non gradate fii ci département Mbacké heure bi fi masaan a ñëw kilifa yi woo dàmp ñu nañu bu ñëwee nañ ko teeru ci diplomatie mais à partir dakk na heure bi fi ñëwatee lu ñu gis nañ ko président Ousmane bi am nañu fa ay logement te xam nañ lépp heure buñ may ñu jël sécurité Ousmane Sonko en charge nañ ko wax ñun waa département Mbacké duñ nangu président Ousmane Sonko ñu convoqué ko ñuy barricade këram loolu dootuñu ko nangooti bu fekkee ne ñoom mënuñu koo jël sécurité ñun waa Touba dinañ jóge Touba dem sécurité Ousmane Sonko à part de maintenant Ousmane Sonko ñu ngi ko xaar ci département Mbacké bu ñëwee dinañ ko teeru lépp lu mu fi waroon am dina ko fi am meeting bi annulé wuñ ko ñoom nag ñoom am seen force de l'ordre bu leen neexee ñu rassembler yëpp jël ko mais Ousmane Sonko suba dina ñëw ci département bi dinañ ko teeru tatagal ko lépp luñ ci fekk ñun dinañ ko assumer comme suñu responsable. mën nañ xalaat beneen meeting ci fan yi ñu dem. loolu lépp duñ ci wax annulé wuñ bii bay xalaat beneen meeting liñ jàppoon tey moom lañ jàpp ba léegi à part de maintenant suba dañuy def meeting Ousmane Sonko dina ñëw dinañ ko teeroo tatagal ko Antoine Diome ñu xama ko ne ko Touba amu fi tous na bàyyi manipulation yi muy def fen tappaleem yi muy def commissaire police ko gis xam ne tey bi muy liir li muy li muy li muy bi mun na si gis a xool ñun jàkkaarool ndax ab politicien la a tappalekat la du waxkatu dëgg kon nag ñun jël nañ suñuy responsabilité bu dee ñoom ñoo moom dëkk bi dina leer ndax ñun suñuy maam suñuy maamaat bërkaat dem kenn mosu leen tot duñ bàyyi ba heure bi Macky Sall jóge ci àll ba dañu not loolu ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg du motif dara meeting daan def yëpp benn signature lañ am meeting bi mu mujj def coalition Yewwi Askan Mbaye Seck mii rek moo am signature bi kon buñ taxawee ba heure ñu naan meeting dafa war am trois signature loolu du dëgg meeting yi ñu mas def benn signature lay am c'est la première fois su ñu def meeting avant waa APR ni meeting bi du am kon day mel ne ñoom waa APR yi ak waa Antoine Diome ci la sukkandiku ci fomb seen meeting bi kon nag ñun jàpp nañ ne Macky Sall bu fekkee ne dafa bëgg nekk dafa bëgg rey ay nit pour toogaat ci mi dina ko am te à partir maintenant man bokk sama man sama li wax man la engagé wallaahi la xasim bu bëggee not président Ousmane Sonko bu bëggee not Ousmane Sonko bëgg ko dugal ci kaso wala mu moom suba dina ñëw ci jumaay Tuubaa ji ji julli ji dem ci université ba def karawaan ñu ànd ak bu fekkee ne ñoom ñoom dëkk bi dina leer